Assalamu donc euh, euh, d'abord je euh, remercier monsieur le maire de recevoir ce bureau Je remercie également médecin chef de région Dr Barry mi yónnee docteur madame madame Sec. remercier également les partenaires sociaux mais également la presse locale tey donc dañuy fi pour réceptionner Euh, benn don boo xamante ni suñ partenaire TCI moo ñu ko jagleel euh, ci wàllu xeex coronavirus mi nga xamante ni réew mi mi ngi ko jànkonteel depuis cinq mois donc février ak léegi ñu ngi jànkonteel pandémie bi donc partenaires yu bëri ñu ngi yëngu tey donc TCI la TCI donc doon na yëngu aussi ci wàllu euh, mortel réduction mortalité maternelle ak néonatale donc euh, seen programme bu njëkk mooy planification familiale donc tey ñi ngi appuyer district yi ak communauté bi ci wàllu xeex coronavirus bi donc remerciement la donc kontante euh, ak mbégte ci wàllu euh, jàppale bi jàppale parce que secteur de secteur santé bi moo nekk en tête ci xeex bi Euh, donc secteur santé bi am na yeneen secteur yu jàppale santé bi notamment euh, les les autorités politiques ak population bi yëpp communauté bi donc fu mu ne nii euh, remerciement la remercier tout le monde et merci beaucoup. ñuy remercier waat rek ci monsieur le maire. ci turu médecin chef de région docteur Aïssatou Bari Diouf mi nga xam mom mo moo bëggoon ñëw teewal si boppam mais xat-xat yi ak liggéey bu bari bi motax tax mënul ñëw mu yoni ma man mi nga xam ma yor programme planification familiale ci région médicale bu Kaolack di wax ne aussi kontaan nañ tay ñëw fi teew parce que permettre na ñu xamanté ak maire parce que depuis 4 ans ñu ngi dégg action yi di gis aussi parce que dañuy participer ci activité yi parce que au niveau national sax dañ koy wax engagement wu ñoro ak à travers Tisiyaay parce que maire bi moo ko porté ba tax loolu mën a ñëw fii te ku xam ñooro euh, xam ne am na wàll bu rëy ci biir région bi te xam nañ ne planification familiale mooy pàcc bi nga xam ne euh, moom day dimbale loo xam ne lu leer la ci ndeertewu yaay ak doom te gis nañu ñu ngi ciy def ay jéego yu am solo Euh, ci biir district bi di remercier waalo aussi médecin chef de district bi moom mi nga xam ne daf ñuy jàppale di ñu faciliter liggéey bi ba nga xam ne fii résultat yi ñu ngi ko fiy am ñu gën si góor góorlu rek ci biir loolu aussi euh, lii nga xam ne jot nañ ko aussi ci xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex covid 19 bi aussi mu ngi firndeel engagement maire bi ak jàppale bi nga xam ne Tisiaay mu ngi koy jàppale di profité waal di wax di wax population bi ñu gën ñu si jàppale di respecter mesure de barrière yi ndax ñu mën a gën a mën a xeex doomu jàngoro ji mu jóge fi ñu mën a continuer def suñu activité yi normalement ñu ngi leen di remercier yéen ñëpp